naqar tiis ak njàqare la askan wi dëkke Malika ci quartier njaago yi di dund Amina dem na ba faw ginnaaw ba borom këram fàtte ba kanam ci kër gi la jëye ji xewee premier étage ci néeg bi ñu rëdd numéro ay dëkkandoowam di ci indi ay seede naam sax bëgguñoo wane seen xar waaye jot nañu ñoo nettali lañu ci jot a xam. seede bu mooy seede mooy ko ni ñoom ñaar seen diggante dafa xaw a naqare naqare bi yàgg na du tey ndax ñun mooy loolu ñun dañoo ñëw ci kër gi fekk la ñoom ñaar ñiy histoire seen histoire yàgg na teg si tamit parent xale bi jigéen bi xam na ni doom bi lu muy dund rafetul moom waajur ku jigéen ki xam na ko bu baax. depuis fii kër gi moom munta bañ a ñàkk bañ am àtte ñoom ñaar boo déggee seen histoire foog nga yëg nga àtte ndax dangay xam ku góor gi danga koy jàppee comme sa rakk bu góor mag bu góor ku jigéen ki nga jàppee ko comme sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen doo mun a bañ a ñàkk àtte mais àtte bi dañoo dem benn instant bi dañ cee sonn ñu commencé ci génn ku nekk commencé ci génn mm. ndax xale bu jigéen bi da ngay ñëw di ko àtt mu lay jaxase jëkkër jëkk yooyu ay wax yi sew commencé ci génn ñu ñëpp ñu téye ci suñu bopp ñu bàyyi leen foofu. man nag wax dëgg yàlla moom li ma siy wax bariwul parce que dama dugg sama néeg dégg mu naan ma ubbi sama ñëw ne ko sëñ bi mu ne ah ma ne ko bàyyil kii jigéen la mu bàyyi duggaat ci biir ma dem dugg sama buntu néeg tëj ma toogaat lu yàgg ma dégg ay dóor. ma ñëw ma ne ko yow xanaa rusoo ma ñaan naa la kii jigéen la waroo koo def nii mu ne ma nga puus fii ma daal di ci laa ne waaye yéen du ngeen àtte ñu ne kii boo àttee dalay saaga ma ne ko bu yeboo mu rey ñu ñun waa kër gi mais nii mu def kii baaxul ci la ko dóoree nag ba xale bu jigéen bi xaw ma dafa xëm xaw ma man maa ñëw di ko ëpp xaw ma loos bi dafa damm xaw ma lan moo damm ci moom mais su ma nii cër yi ma ne nii cër yi ma ne lii loos bi di def nii. parce que borom kër gi bi mu yéegee ñu ne ko wol pëlis moom woowul pëlis dafa demal boppam ba yegg pëlis ci la woowee indi policier yi ñu ñëw bi ñëwee yéeg ci la ñëwee ne anamu ñu dugg ubbi néeg bi fekk ko fa dañoo ñëw rek fekk ko fa nag ko ni kaay mu ñëw ñu mënate ko yóbbu jël xale bu jigéen bi nguufaan ko dugal ko ci oto bi. xam nga man bi ma fi dëkkee moom wax dëgg yàlla yàggul mais bi ma fi ñëwee man. bii mooy quatre fois may fekke même bi yaayam ñëwee sax di jooy nee naa ko meer mu ne ah mane ko lii suñ nee la sa doom nga ne bàyyil noonu dóor yee ko ci neex xëy na nag bëggeel moo ko weral loolu mais sa doom buñ ko toppee di dóor danga koy jël teg ko sa wet nga mën koo arranger mais doo ko bàyyi sax jour naa dóor yee ko neex. Ah, kon yaay ji dañ koo woo wi jour bi mu ko njëkkee dóor dañoo woo yaay ji ne ko léegi na ko yóbbu mu ne déedéet kii su ma ko yóbboo tamit day ñëwaat parce que dóor yi dañu la ko neexee. yaayam moo wax loolu waa si jàlloo lay wuyoo nekk dëkkandoo waaye it di aide-soignant ci l'hôpitalu Kër Massar mu doon ku leen jege. ma ci mën a wax mooy je suis DSD au niveau de cité Sonatel poste de santé cité Sonatel dama jóge sama kër doon seetaan télé ma wàcc pour dem am lu ma doon jëlee ci benn femme yi romb nit ñi ñu fees ma na lu xew ñu ne Amina ak jëkkër ji ñooy xeex. ma ne comme waxoon nañ ma ko ci suba kon xaaral ma dem fa waxatee wax ak jëkkër ji mais je n'attendais pas que ñëw fekk fi leneen ma ñëw dugg si fekk xale góor yi fees fii dell ne lan la ñu ne dañuy bañ xale bu góor bi wàcc ndax dañuy opposé faray jabaram ma daal di yéeg ci kaw dajeeg sama dëkkandoo be ma ne ko anam mu ne mu ngi ci néegam parce que xaw moon néegam ma ne ko anam ma damaa fëgg rek konko mu ne kan la ma ne ko man la maa mu ne maa ma ne mu ubbi bunt bi ma dugg ci bi ma duggee ma ñëw fekk fa benn agent boo xam ne Croix-Rouge la doon def ma fekk mu tëdd sëgg ci kawam di ko réanimé ma ne ko lan la mu ne ma ah xaar ma xool ma tourné ma ne jëkkër ji yow lan moo xew li noo ko mën a defee mun ne ma maa kii dafa bëgg a yàq sama àddina rek après ma daal di delluwaat ci kooku ma ne ko garaawal ma daal delluwaat ci kooku ma duggee noonu di wax ak gaañ bi sëgg laal loxo xale bi ma vérifié ma dindi soutien bi génnee soutien bi daal di koy defaraat pour defaraat position bi ma gis na li ma gis bëgguma ne ma ne lii ma tourné ne ko diw mu a ma ko léegi lijjantil gaaw oto ñu mun ko évacuer parce que dafa manqué oxygène te néeg dafa tàng mu ne ma maa wax ma li am yow lii ngay liggéey wax ma li am kon kii dafa dee man ne ko deewul bàyyi li ngay wax mu ne ma ay Amina yàq na sama àddina kon man Amina dee na rey naa nit daal di expliquer ma ne ko deewul yaa ji di yuuxu man ne ko meer mun naa ma ko li ngay def kenn du ko def maire bi jël almet bi taal lakk karaw bi ma fay karaw bi parce que karaw xale bi jigéen la lakk nii lakk ko nii ma fay lox maire bi da ko lakk def ko ci bakkan mu ne parce que xale bi day daanu ay crise ko daan def souvent bi ma bi mu lakkee damaa fay bopp bi génnee poudre bi def ci bakkan bi ma ne gaayan bi fexeel ñu lijjanti oto euh, gaayan bi ma fekkoon mu koy sécuriser ki ma fa njëkka ne ne ma woote naa daal di jëlaat téléphone woote gaayan bi ne ko ñu ngi ñëw ci laa génn ci biti yaay mi toog ma maa dafa dee ma ne ko dee mu ne ay sama àdduna yàq ma ne ko deewul ma wàcc ci suuf pour xool ku ñu koy mën a jàppale pour ñu mën ko génnee ma sëggee fii dama ñëw fekk borom kër gi taxaw fi xale góor yi taxaw am ku taxaw fi ma ne paa bàyyil kii mu jàll pour mën a ñëw ñu jàpp kii wàccee ko paa bi ne kenn dugg ba police ñëw ma ne ko lu ko mënti dal mu naa ah, ma ko tu seras responsable parce que kii dafa manqué oxygène te mën nañ ko évacuer te dañ kaa war a évacuer suñu rôle mu naa ah, ma ne ko dañ ko évacuer police buy jàpp kii mun na ko jàpp mënu fee rëcc après waa ji dat mu ngi sol benn tubéy bu beige ak t-shirt bu gris nakate ak benn casquette nag te homme de tenue la mu ne ma lan nga bëgg ma ne ko dama bëgg mu bàyyi kii mu traversé a ñëw ñu sécuriser génnee kii pour mun ko évacuer parce que mu ne ma lan nga ma jox sama carte Desdom bi mu xool ko mu ne ma am nga ci droit mu daal di yéeg ne kan la ma ne ko gaañ bi mu yéeg mu yéeg gaañ bi mu pa euh, homme de tenue bi mu fëggaat bi mu fëggee mu ne ko grand ubbil mu ubbi mu ne ko génnal femme bi ñu génne ko mu ne ma am na ventilo ma ne ko caam ventilo bi air bi baaxul dafa tàng te néeg bi dafa fermé wu ne ko bàyyi ñu génne ko mu bëgg a insté gars bi ne ko eh yow amoo looy insté kii dañ koy génne yóbbu ko kii liim la wax dëgg la mu ne ko nañ dugg moom ci boppam caam moo dugg te tatafu xale bu jigéen bi yëkkati ànd ak moom mu mel ni kuy daanu ñu jàppandu xale bu jigéen bi daal di génn ñu ko fréchet def ko fréchet ñëw ba si kii ñoo ñu ma rocci sa loxo beneen xale bu góor ñëw ñu dugal loxo ñu génne ma génn sama loxo ma wàcc traversé ma traversé man maa leen jiit ñu wàcc ni bi ñu wàccee ba fii dañoo génn tuuti rek benn gaayam bi ne kee ci ginnaaw borom ci survêtement bi mooy diw man ma daal di traversé ma ne ki ma doon ki nekkool ci néeg bi di si euh, bi di ko sécuriser ma ne ko nañ dugg dugal nga ma teg bopp bi ñu jàpp ko kooku moo njëkk a dugg mu teg tëddal bopp bi ma jàpp tànk ñu lem après man ci laa ànd yaay ji ñun génn après noonu police daal di ñëw jàpp gaayam bi dugal ci oto bi ne ñu fan ngeen di dem ma ne ko dañ ko yóbbu Kër Massar comme man Kër Massar laa bokk man fa ko ñu yóbbu ko foofu président ne kon dem leen dañuy topp seen ginnaaw ñu daal di génn topp suñu ginnaaw bi ñu demee tam ba hôpital ñoo ñoo ma présente sama carte kooku ne la la man ko no dafa am ku doon jotee ak jëkkëram mais comme xaw ma lan la dama bëggoon nga constaté ñu xool ñu lan la parce que nangatul def benn réaction famille ni indi leen ko ñu ut chariot daal di koy teg dugal ko tëddal ko mu ne ma ku àndoon moom mën ko man ne ma ah ma ne ana ko mu ngi ci biti mu ne lan la jotee jëkkër mu ne ko fekkeew ma ko man damaa ñëw fekk mu tëdd mais comme tëdd na te am naa droit ku feebar la wala ku gaañu la maanaam gaañ nañ ko dinaa ñëw xam gaañu gaañu lu mu demee mais mënuma constater dara moo tax ma ne xaaral ma indi ko après ci la médecin bi ne li nga wax dëgg la mu ne ma toogal xaaral tuuti ma taxaw médecin bi xool woor ma dugg si ma dugg si mu ne ma xam nga li nga fi indi ma ne ko déedéet mu ne ma yaa amee une corps sans vie ma ne ko ah ma mu ne ma waaw ko je le savais parce que bi mu koy génne man xam naa ne y avait quelque chose mais mënu ma ci prononcer parce que amu ci droit ci la ne kan ngeen àndal man ko chef de poste baa ngi ci euh, police ki ñu àndal mu ne woo ko ñu woo ko gars bi dugg si mu ne ko ah, kii bi ngeen koy indi il était elle était déjà morte après ci la waa ji ne xamoo luñ jotee ma ne ko dëgg yàlla moo tax may wax xaw ma luñ jotee dégg naa ñu ne 3 jours ñu ngi jotee chaque jour ñu ngi jotee ba ma ne woon day ñëw sama kër day ànd ak samay samay. dañu day ànd ak ñoom xale la vingt ans la am kon bu ñëwee am problème war nañu man ko man bi may dem génn ci biti ba dégg yem ci problème bi man dama demoon pour intention dem àttee histoire fay histoire laa bëggoon mais bëgg moon fekk nit ku dee malheureusement ma ñëw fekk loolu am mais man xalaatumoon moon aussi dee la ma ne nañ ko évacuer rek yóbbu ko. Antoine Gomis moom moom kër gi mbir mi amee moom mi le sax moo dem woowu ji takk der yi ngir ñu ñëw nemmeeku ci jëye ji. Ce jeune-là, il est venu demander une chambre, il n'a pas demandé l'appartement. Je l'ai loué, la chambre, ça fait deux ans aujourd'hui. Il avait cette fille-là comme en copinance. Il venait me voir, il me l'a présentée. Aujourd'hui, ils sont mariés, officiellement. waa ji bi mu fi jëlee nekk ak léegi mat na ñaari at ngir nekk ak ndaw si ndem sax euh, mujj nañu sëy bu yàggul dara ndaw si ñëw na si man di ma xamal ni dafa am xar ma yàlla ak jëkkëram waaye boobu ba léegi euh, juboowuñu ba àllarba si ngoon bi coow li di am ma dugg si néeg bi fekk ndaw si mu tëdd ma laaj lu xew ñu ne ma dafa am jote ak jëkkëram ma laaj jëkkër ji mu ne du wax ma artu ko ne ko sa jag sa ma artu ko ne ko sa jabar dee na mu weddi ko jël jabar ji dugalaat ko ci biir néeg bi ma ànd ak sama doom dem police ah, ngir yëgle ko ma ngir yëgle ko ma ànd ak police ñu ñëwaat ci kër gi ngir mën a jàpp waa ji waaye tamit mën a yóbbu ndaw si hôpital Ils ont descendu la femme, ont allé jusqu'à l'hôpital. Il le la yaayu Amina nag moom it ca koñ boobu li la dëkk dëj bi sax amaana këram lañu ko amal mbokk yi xarit yi ak it dëkkandoo yi bokk ak ñoom naqar wi. ay jooy yu metti la àndandoowu Amina yi nekkee seen xarit ay atam tolloon ci ñaar fukk ak ñaar ñu bokkoon di def classe terminal boroom këram daal di faat bakkanam ci ay anam yu ñaaw. barki démb toog <laughs> suñ kër benn heure bi <coughs> mu ñëw fa <coughs> presque toog nañ lu yàgg. toog di waxtaan presque fa la toog ba añ ñu ne ko Amina xaar ba añ mu ne baax na tey amu envie lekk doomu daaxa boobu laa ko ci gis bu ñuy toog dala <laughs> ma commencé waaw doo ma indil sëriñ ci waawoon ma ne ko indilu ma la dara ñaar rek laa la indil ñu toog di waxtaan noonu bu ma xëy rek yam si lu mel nii <laughs> ak Seydina Muhammad billaahi Amina ki ko def ni fay ko barki Serigne Babacar Sy. Amina moom sama rakk la ndax moom sama rakk ñi ñooy fréquente ñooy ànd mercredi ba muy génn àdduna noonu suñu kër la yendu ba njàq añ ba pare suñu waa kër ne ko xaaral añ mu ne tey aw ma envie lekk seen doomu daa damay xool ji leneen li ma lekk heure boobu lu jóge ci kër ga ba ci ëllëg sax ci lañ dégg ay yuuxu ne Amina génn àdduna mu doon rakk ju baax rakk joo xamante ne kaf ak foo ak rek la xam. musul soppeeku musul changé benn kanam biñ ko xamee woon moom rek nañ ko xamee moo tax li metti nañu torop torop torop torop waaye juróom wu góor génn àdduna waaye góor gi di Samba Diallo di mbokk ci baayam moo doon yaayam moom mi mooy baayu jigleem ki génn àdduna ni suma doomu nijaay moo ko jur suma doomu nijaay xaqan mooy papaam bi kooku génnee àddina man maa takkaat ndey ji xam nga bon sama doom la. xam nga man man laa nekk damay damay ñëw rek da dem mais Kaffrine laa dëkk hmm. mais nag dëkkandoor yi ci la ma dégg ñuy wax nee nañ moom def ko daan door sax ndey sax ndaw si da ko nëbb ndeg bëggu ko parce que gisuma gisuma bët mais dëkkandoor yi ci ñoom rek lañ mën a basé bi nga xamee ne mbir mi am na it kilifa gi nekk fii su ma daan dem dama ko wax ne ko kër gi nag maa ngi la koy dénk gannaaw yàlla ak yonent bi maa la koy dénk bi nga xamee mbir mi am na moom moo ma woo ne ma Amina dey jigéen ñaa ngi yuuxu ñu ne jëkkëram faat na bakkanam ma ne leer na mu ne ah jigéen ñaa ngi yuuxu laa ne faat na bakkanam ma ne ko waaw ana anamu moom mu ne ma yóbbu nañ ko hôpital Kër Massar ma ne ko léegi dama bëgg nga dem ba ca hôpital ba bam leer la ne dee na wala deewul ma xam lu may wax bokk yi parce que nit ñi ki dee na te deewul lool beneen mbir la bam demee ba yegg médecin bi ne ko kii de indiaale wu fi bakkan ci la ma xaw a plaire pour neexul ba neexul nag me kii nag ñàkk na bakkanam ki laa man ma ñëw fi. jege ñaale yi nag di ñu xamal ni yaayu Amina fi mu nekk nii mu ngi ci poste de police bi ak takk der yi bu fa jógee ñu xamal ñu ne dina dem ca lopitaalu Dantec ngir daldi di jëli néew bile. kile nag def jëye ju mag ji ñu gën koo xam ci caam doon boroom kër ci soxna si génn àdduna yoon daal dina koy teg loxo ca bésub àllarba boobule mbir mi xewee.